contentement bu ma ko ànd ak yéen di leen xamal nag briefing campagne communication ànd ci ak 1xBet 1xBet nag est une plateforme de jeu vous pouvez parier en ligne maanaam nag mun ngeen euh, def seen parier ci ligne comment l'acquérir maanaam nan ngeen def nag bu am ko da ngeen di vous devez télécharger l'application sur Apple Store maanaam boo amee iPhone mu nga ko ci télécharger wala Play Store Android mooy téléphone yi nga xam ne nag Android la war nga connecté wu ci site internet bi nga xam ne nag moom mooy 1xBet 3w euh, point 1xBet www.sn euh, vous devez vous euh, euh, vous devrez vous inscrire en plaçant vos informations personnelles maanaam di nga remplir li nga xam ne moom lay laaj ci mbir moomu ngir nga mën cee bokk campagne Total Énergie Afcon Challenge CAN 2021 bi vous devez miser et jouer sur les matchs de la CAN en utilisant le code de promo 221 bu kan bi nga mën cee miser ci football bi nga xam ne moo am ci Coupe d'Afrique bi mën ngaa am ngañaay boo xam ne nag ba ci 5 millions de francs CFA mën nga ko cee gagné participate tout le monde euh, a une chance de gagner maanaam ñëpp mun nañu cee euh, gagner avec 1xBet tout le monde a une chance de gagner 1xBet partenaire officiel de Lyon foo mi nag dañ koy tere képp koo xam ne amoo fukki at ak juróom euh, ñett doo ci mën a bokk moo taxit ñoom nag ñu daal di koy def noonu kon nag nañu topp ndigal yooyu nga xam ne ñoom nañ ko bëggee xale yi nag xaar dem uti liggéey nag te mën a jàpp dara waaye nag mag ñi nga xam ne dañoo soxla xaalis mën nañ bokk ci po moom mbokk yi ñu ngi gërëm kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñëpp ñuy sant kenn ku nekk euh, di leen ñaanal yàlla may leen fan bu gudd ak wéru garam kilifa diine yi nekk ci réew mi ak ci bitim ñi nga xam ne dañoo dund àdduna yàlla a kawe ñu nekk ak ñun yàlla fi yàlla bàyyi ñu ànd ak ak wér te ci yoonu siraatal mustaqim allah di yet ma dee suñu bàyyi ju baax ñi nga xam ne sëñ Babacar Sy rabbi taala moo ko jox wérd ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wéru garam moom borom njàmbu faal yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd mu yàgg fi lool te daa day ànd ak wér mbokk <laughs> président Macky Sall mer na mer goo xam ne tey ba mu woowee ñi nga xam ne ñoo nekkoon ñëpp candidat yëpp ca sal ba ba muy wax picc sax ak weñ yëngutuwul ñëpp na tekk wax na la muy wax ba pare boole ci fulla ak fayda ah lam leen jee wax avant muy daanal ak ba mu daanalee nopp bu ko dégg te wax jooju xam na ne yow lay waxal ah boo jógee da nga defaral sa toogaay président Macky Sall ca salle. des banquets maanaam salle bi nga xam ne ci la ñuy recevoir képp koo xam ne palais ba dugg nga fa mboolem candidat bu bonnoo ñoom ñëpp ñu ngi doon toog ah Macky Sall ah yàq na leen mel ne xamee ñu dem seeti président Macky Sall lii nga xam ne moo ko metti ci élection yi ak nii ñu ko doxalee ak xaalis bi nga xam ne jox nañ leen ko ñu daal leen duba bañ tëdd ñu dem seeti président Macky Sall. ngi leen di nuyu ku nekk sa ak sa sant depuis dimanche dañoo fanaane ak yaram boo xam ne neexul xol yi neexuñu parce que dafa am loo xam ne yaakaar naa ne caaxaan ak xatar-xatari ak wóolu sa bopp ci loo xam ne amul dara loo xam ne liggéey ngeen ko tey teg ko sama loxo ma mën leen wax jaaraama xaalis bi nga xam ne moom la gën génne on a un budget de presque 3 milliards yoo xam ne def nañ ko ci campagne bi kenn ku nekk nga wëgër wëgëri bi ñuy ñëw taxaw jox leen ma lii jox leen ma lii ñu doon leen tous les moyens et puis li ma gën a metti mooy fi nga xam ne mënul ñàkk te war nañ fa jaar di stratégie yëpp da ngeen ko perte non non non bu soxla ma ngeen ay tàccu seen gàcce ngeen di tàccu parce que on a mis tous les moyens à vos bords seen côté amul leen fenn foo xam ne mun ngeen fa taxaw défendre li nga xam ne mooy sama bilan parce que yu ndaw yi yu élémentaire yi ngeen xeeb ni ça va se répercuter dans l'avenir ay xale yu ndaw yoo xam ne xonk tur barke démb nañu juddu ñun bi ñu amee xale yi âge bi xale yi xalaatu ñun dañu doon maire quand même moi je suis devenu maire bi demee ba nekk premier ministre mais yi ngeen def nii mais sacrifié Benno Bokk Yaakaar parti yu lakkatu si ginnaaw benn bokku Yaakaar ils n'ont rien foutu avec ça boo leen toggee ci tala tala seen lammiñ yu ngand yi njëkkante ay débat yoo xam ne da ngeen fay dem ñu duma leen ba pare ngeen toog ni xujj di ma xool xaalis bi ñu leen jox noonu du xaalis boo xam ne dañ ko for caisse noire nañu génn jox leen ko ngeen dem ñu duma leen commencez par mon frère parce que duma làq-raq di xas jàmbur tey nii tey nii mënuma sax génn démb laay soog a soulagé wu ci match Sénégal bi te match bi sax nu mu demee ba tey sax ça reste actuellement nii yeewu Sénégal lii bu continuer nii dinañu ne ñoom ñooy porte-bonheur Sénégal boo leen jógee seen musaru rëy yi ak seen bopp yu digg yi amu leen dara loo leen di def lu dul dem ñu leen di duma ngeen toog naan ay non décompte ay xoma fan la jaar fii la xari Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas l'argent du, du, du, du, contribuable, cet argent, c'est l'argent de l'État. Effectivement, c'est l'argent du contribuable. ah aw ma t-shirt jox ma essence jox ma lii ñu jox leen tous les moyens ngeen di taxawaalu ay animateur ak ay mbandakat di leen dóor xale yu ndaw avec ça ngeen bëgg ma mu ma ma am numéro 2 li ma leen bëgg a xamal ci gàttal mooy bu ma kenn tudd ci yéen ñëpp laa wax bu ma kenn tudd ci bu ma kenn tudd soo leen xëyee ngeen liggéey seen liggéey li ma war def naa ko def ñi ñu gane nag bu yow ñu takk seen bagage ñu bañ a xaar ñu leen di wax xam nañ fi ñu jëm que que personne ne parle avec nous te bu leen bett ngeen xëy ba teel dëgg ne maa ngi ànd ak samay noon parce que yéen a ma utal ay noon ba pare ndekete ñooñu ay jàmbar nañu bu leen dara bett dans ce pays ah bu leen jógee toog ci télé yi di nganda ngandulu fekk seen bopp yi dara nekku ci ah qu'est-ce que ça yaakaar na xaalis boobu dañ leen koy bàyyi comme ça dama xam ne am ngeen ay doom am nañu ci sëy am nañu ci am jabar mais sinon ci damay wax loo xam ne tey bulu xam ngeen ma di def seen bopp yu ngand yi amuleen dara loon di wax fii mbokk maam góor jazaaka moom ci boppam résultat yi ci biir këram bi tàkkusaan deme ba timis bi dugg jàpp li nga xam ne moom mooy euh, altine ba résultat yeeg gën a confirmé maam góor Jazaaka du mu ko dundee ci biir këram ak doom ja Talla Jazaaka bi nga xam ne nag wax dëgg yàlla euh, waykat la kon moom information ba dañuy dem seeti kër maam góor Jazaaka. waaw waaw waaw non <laughs> day baax incha allah day baax waaw non non non non non non non oui. ñu ngi préparer benn concert sax xam naa ne bon man du bi paa du ma woy quoi sama doom ji baay bàyyi mu woy su ko defee <laughs> sama doom ji laay bàyyi mu woy su ko defee mu gërëm bàyyam quoi ci kaw scène bi ñu def ma maire yéegal ma wala programme bi noonu laa ko bëggee quoi boo man base base wu ma ci ay résultats parce que gagné naa ba pare li ma li ma liggéey euh, li ma liggéey tëngeej kenn liggéey ko ko waaw donc euh, soxlu ma beneen artiste sax di ñëw je veux juste rek jël promouvoir sama doom ci occasion bi ñu xam ne ne sama doom jot na léegi pour ñu xam ne euh, taala mën na way way baayam quoi <laughs> comme doom way na baay ja <laughs> ok booy kon yow lu ci rek je te tiens yow daal point final daal mooy xamal jàppal na maam góor nekk na maire Tëngéej ja ah. ok booy <laughs> waaw taala kaay kaay toogal kaay yaa foo foo topp ci foo toll ci répétition yi. parce que xam nga normalement bu ñu gañee mhm. dañu war a maye concert. bon concert bi cette fois-ci li ma bëgg mooy doom gërëm na baay ji. sama morceau bi ñëpp xam Jazaaka nga taxaw nag ak fulla ak fayda parce que xale yi di woy yëpp yaa leen dàq woy man dama am fit fii toog ne Youssou Ndour ku dul Youssou Ndour à part moom man maa ci dàq way yow nag da ngay taxaw tamit nga jël fit boobu ci man jour bi nga xam ne moom lañ may def maire way bi nga way bi ma bi ma bi ma la jox ci guddi fan nga ci togg jasaaka bi aja déedéet déedéet te ngeen yéen sant nañ leen sama papa bi ngeen fal askanu maam góor gërëm nañu te ngeen ñun ñooy sang taal na gën taal na gën a sama papa nekk nekk meer delloo njukkal waa Tëngéej maam góor sagal na Tëngéej acca waaw sama papa nekk na non non non sama papa nekk na meer seen ajo dina fajo papa yaay meeru Tëngéej jëlal waa Tëngéej leen sargal sama papa ndam bi mu am tey waaw Tëngéej ñu ñoon ñoo ko moom taara de moom Tëngéej de yéen leen sama papa am na ndam dina defaraat ngeen waat ngeen jóg. léegi foofu boo xoolee damay damay damay woo. waaw papa kaay fekk si ma ndam bi ñoo ko bokk su ko defee gars yi tàccu. waaw xam nga dama bëgg nga dem ak euh, arrange on reprend. papa am na ndam. dina defaraat ngeen waat ngeen bég nañ. sagal ngeen sama papa fal ngeen ko ba mu falu bureau vote yëpp ndam de maam góor moo ko am yow yaa koy ah papa résultat yi ok c'est bien ah booy yëpp ay waali yëpp moo leen dàq way il faut mu dëgëral boppam tuuti rek ay waali yi booy yëpp booy c'est ça quoi Eh, eh, yaakaar naa ne résultat yi leen wàcc ah man de soxla samay toog di xaar ay résultat concert bi laa bëgg xool xaaral waa mais Tige bugguma xaar sax mu sedd bugguma xaar mu sedd dama bëgg résultat parfait yi bu génnee rek ñu joxe concert rapidement du am benn problème directement waa bâche leen sonorisation bi tout ok résultat yaa ngi daanu <laughs> waaye taala laa doon laa doon briefé nii non booy bi boo nee naa ko lu la dese mooy feeling feeling bi sa papa am <laughs> ok moom dem na jël waaye il paraît que mu ngi génn ah il paraît mu ngi génn waaw ok kon tout à l'heure mais yow ñu préparé nga dem terrain bi defar foofu ah taala wala yow nga ne. jokkul. te ngeen noor. zéro. non loolu mënul nekk. papa joor ga sama ñoom bàjjen joor ga sama ñoom bàjjen joor ga ñoom ñoom sa mitin ñaata kaar lañ fi indi ay ñetti kaar. papa xoolal foofu deux lañ fa am joor ga. taala fu jël résultat yi. si école yëpp. papa yow yaa waxoon tey jii nii Sonko du gagné. non foofu moom foofu moom taxul ñu wax ko moom du gagné foofu. papa Sonko gagné na. nga ne. papa tamit boo wax tamit dama sóoraale tamit papa. papa da man daa am lu ma mel si dëkk bi tamit. non dañu confesser allo waaw mais loolu la wax nii loolu mënul nekk non man li ma liggéey xajul foofu loolu mënul nekk. attention dañ ko dañ élection dañ ko truqué dañ ko truqué parce que loolu mu noon nekk man maam góor li ma liggéey kenn liggéey ko je suis le maire tey je suis le maire demain eh, je suis le maire tey je suis le maire demain te kenn du ma tey fête sama victoire pourquoi ñu bàyyi depuis demain ñu ngi toog di xaar résultat ñu ne résultat ay jor ko jor ko sama bàjjen euh, Ndeye Coumba Dieng fa la nekk ak Aram Faye yow ils ont mobilisé de deux quarts deux quarts cinq cent personnes car mini car bi si c'est pas normal du ñu nangul tey loolu dañu bloqué résultat yi ñun dañuy tënne li ñuy ba tey am nañu résultat résultat yi ñun xam nañ ne on a gagné à kenn mënu ko fa liggéey kenn liggéeyu ko fa du ma ko nangu non non dama non gëm yàlla mais loolu duñ ko nangu damay woo la presse sénégalaise parce que lii du yoon du yoon on a gagné ma li ma liggéey kenn ko da ko xam sama meeting de clôture bi xoolal sama meeting de clôture bi li ma li ma xoolal sama meeting de clôture bi li ma liggéey non non bu fekkee ne amoo amoo amoo amoo engagement dem taxaw dans les réseaux sociaux défendre ma man maam góor la candidat maa koy génn tu es le directeur cabinet waroon nangu loolu waroon nii dañuy xoolal on change rien sama gars yi ñu ngi may envoyé li mu am yi man loolu may commencé kookali quoi di ma tooñ papa tamit ñu ne sa papa si reste sax instant amu sax si bureau de vote yi li dafa métti papa ah. sama papa dafa gagné du dëgg du yoon yaa moom Tëngéej du dëgg du yoon. ah, ah? waaw du dëgg du yoon man mii maa gagné. papa wi ca xarala say tuuti du dëgg du yoon sama papa dafa gagné du dëgg du yoon. ah du dëgg du yoon sama papa dafa gagné du dëgg du yoon. maam góor dafa gagné. du ñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg sama papa moo gagné du dëgg du yoon yaa gagné waaw du dëgg du yoon sama papa dafa gagné du dëgg du yoon moom moom tëngeej du dëgg du yoon nañu génne résultat yi na rasa yi moom moo ëpp moo ëpp li a am sax si bureau de vote papa man loolu dama miti papa yaa du dëgg du yoon man mii maa gagné du dëgg du yoon du papa moo gagné du dëgg du yoon mbokk yi am nañu mbégte bu mag euh, di gërëm képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan euh, Serigne Makka Jaxate ñu ngi koy ziar dëkk fii nag euh, ca Dakar Yoff ca bitiku maraton bi fa la dëkk nit ku yàlla baaxal di ñaankat boo xam ne wax dëgg yàlla mën ci baatin di nit ku yàlla baaxal wax dëgg yàlla Serigne Makka Jaxate ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ndax non seulement suñu soppee la waaye bañ koy xam yàgg na lool mu nekk nag ci yoonu baatin di ci ñaan di ci joxe ay résultats yu am solo yal ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak saa yu toogee di ñu seetaan wax dëgg yàlla daf ñuy yónnee ay ñaan yoo xam ne ñu ngi koy gis kon yàlla ko yàlla defal jàmm Serigne Makka Jaxate nekk ca Dakar yow près de euh, de la boutique maraton ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ak xéwal numéro téléphone am la dañ ko maye 78 111 12 29 war nga def 77 378 99 29 78 111 12 29 ak 77 378 99 29 moom Serigne Makka Jaxate di nit ku yàlla baaxal di ñaankat bu baax boo xam ne wax dëgg yàlla li muy ñaanal doomu aadama yi ñëpp bëri dañ teg seen bët ndax yar ak yiw ak fa ko donnee ak fa xam ne fa ko cosaanoo rek jar naa jox garantie ziara générale de Serigne Babacar Sy rabiàl taala anhu ca Tiwaawan euh, dimanche le 13 mars lay am 2022 ñu ci woo mbooleem taalibe Cheikh ak umma islam bi yëpp ndax Serigne Babacar Sy rabiàl taala anhu bésam bii daal bés la boo xam ne euh, ziara bu ñëwee fépp la doomu àdduna bi ndax sëñ Babacar Sy rabbi taala anhu moo jar ñu koy ñaanal yàlla yokk leeram waaye taalibe yi tamit yàlla jox Pastef ak xéwal bu ñu demee ci ziara bi nga xam ne le 13 lay doon maanaam sama anniversaire ba ci ëllëg sa yàlla may ñu fekk ko te kenn bañ a manqué quatrième édition ziara Thierno Amath Ndiaye foofu ca Parcelles Assainies unité 14 le février lay am parrain ba di Thierno Ibrahima Diallo conférencier ba di Cheikh Moustapha Badiane a manqué euh, one xbet bi nga xam ne nag euh, plateforme la boo xam ne di leen téléphone ngeen ko télécharger euh, l'application sur Apple Store muy iPhone wala Play Store Android wala ngeen connecté wu ci site internet bi nga xam w one xbet sn la dina la mën nga inscrire en remplissant vos informations personnelles waaye tamit euh, di nga mën a jouer ci kan bi nga xam ne li ci des bëritul mën a gagner bés bu nekk wala ay xéwal yu toll ci 5 millions de am am nañu chance pour gagner ci te na bu leen fàtte ne woon XBET partenaire officiel bu Lions yi la kon mbokk yi mu ngi noonu euh, xibaar bi Aliou Sall ki nga xam ne mooy bëj géwélam moo doon jaabante diggante centre vote yi ñoo di ko jox information Aliou Sall était tellement confiant que moom sax information yi xaaru koon ci rajo bi <laughs> Aliou Sall li mu doon xaar rek mooy ñu yee rek ne ko euh, drapeau baa ngi nii <laughs> yaay nekk maire ñu dem xool ni mu ko dundee ak moom ni mu banaliser li nga xam ne nag moom mooy résultat yi ndax banaliser mooy maanaam soofantal résultat yi avant muy génn ndax espoir bi mu amoon ñu seeti Aliou Sow ci biir këram ak ña xam ne ñu nekk ci këram nan lay dundee résultat yi na bu téléphone garaxat yi où sont les enfants ñu ngi ci néeg bi ah. d'accord ok kon baax na génne sarax bi joxe nañ sarax laax yi ah, ak mbiskit yi ok comme d'habitude ah. ah bu leen dóor xale yi nga wax leen ñu kii rek ñu toog ah. ana bëj géwél ñëwagul egsegul ku leen laaj rek Aliou ngi nelaw dégg nga parce que xam naa ne moom fañ doon jaar ak gaay rek fa ñuy <laughs> jaaree gaay yi <laughs> tanta Nogaye ngi woote sànq sax waaw nee na ma xam naa ñu ngi ci kii yi ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan ñoom ñëpp bëj géwél moom xam naa ne du bàyyi gars yi nelaw bu fëggee rek ngeen ibil ko moom rek laa may ngeen bàyyi ko mu dugg dégg nga bilaay mbiyee sal so àlloo jeeba waxoon naa la yow doo moroomu gars yi xoolal instant bi gars yi yéen leen jiitu xoolal du a ginnaaw xoolal dama nekk si école yi école par école école par école yëpp yaa nekk si kanam déggoo li ma la xoolal maa ngi dem ñëwaat xoolal maa ngi lay indil résultat yow daal xoolal amal jàmma rek ma ne mhm. bul sonal sa bopp dañuy gagner on va gagner oui ma da ngay dem ba côté kooñu Ahmed waaw tu vas jeter un coup d'œil dans les euh, dans de vote là mhm. nga xoolal ma euh, les résultats provisoires je veux pas écouter la rajo. man yow yaa ko ni ma koy waxee ak émotion bi rajo bi du la ko waxee noonu. jiitu <laughs> ah, <laughs> ma nga ma ne ko ma ngarale <laughs> ma ko ci ma ngarale Seynabou yaa ngi dégg de waaw kon sarax waatal ñetti ñetti ndabu laax ah? parce que waa yi njëkk génn baax na amee ñoom fu doon jaar ak gars yi jaar gars yi ba géwél moom il est intéressant quoi <laughs> eh, <laughs> ah Mbiye Sall eh. <laughs> waaw ñëwati naa de ah. waaw waaw ñëw rek waaye nag mu ngi topp sa ginnaaw ndax xaw na la jege xaw na la jege mais yaa jiitoogul mais xaw na la jege ah loolu mooy élection waaw loolu mooy élection xam nga élection moom noonu la xam nga foo fa ma foo foo mu am ay tendance yu xaw a jege. mais t'inquiète pas. ba tey am yaakaar léegi léegi léegi fexeel ba tànn béer bi may may xale yi. tey ci guddi gi wala lundi bi. Mm. fekk bu yëpp officiel. waaw naa tey bu ñu amee tendance yëpp dañu xam kuy maire. incha allah dégg nga wax ko gars yi may xale yi concert ak tànn béer fi ñu ko doon defee chaque année. buñ musaan am victoire yu mel nii dégg maa la gëm de. waaw léegi da ngay dem nga xool dernière tendance répertoire bi xam nga man yooyu ni moo koy joxee moo ma neex. <laughs> billaay walaay billaay ma ne yow amal <laughs> ngi demati. Uh-huh. Euh, paa yi ñu ngi def ñaan j'espère. nee nañ buñ sonnul dañ def rek. bisimilah paa yi nekk amoo si sax. waaw waaw waaw dégg naa ko ñu may. <laughs> ñu may oo man je l'écoute avec détachement. man dama koy déglu ak détachement. incha maa ngi maa ngi xoolewaat. ok je sais euh, tout à l'heure. jàmm rek ngay am. ay maa ngi la waat espoir les gens là mbër boo ko doonee benn yoon daaraat ko la ku ma ko waxoon du ma ko gëm. lu xew. Sall ñàkk nañu de. ñàkk ñàkk nañu de. troisième vague bi ñàkk ngay wax la. Ahmed ay dara de jël na ndam li ci ndax di ñu dañ lay topp rek naa la yow la yow la fekk du yow nga ku jël ndam li Ahmed Aïdara de jël na ndam li ay ma la xam Thank you. métti na de mais nañ muñ rek. loolu jaru ko jaru ma tu as vérifié. yëpp kay yëpp. ndax sax dafa bëri. lan laay wax Macky. moo ma jaaxal. defal téléphone bi or mode avion def ko mode avion. Ahmed Aidara mel. moo ñu gañe de borom tës. lii kay du tës lii tasaar la. ma hmm. laay wax Macky. wallaahi wallaahi métti de. xam li nga liggéey fii si Géejawaay. c'est réellement ki laa gagné. moo gagné man kay xoolaat naa bureau yëpp yi ma demoon yëpp jaalaat naa fa. dafa mel ne man damay sekki nii loolu gisoo loolu. ok loolu laa gis man dama naan ndax Aliou mi ma gis nii ndax moom la. c'est que yow koy jiitu dem bay ba côté fin bi. moom si la la doublé. Hmm. Hmm. Hmm. boo amee noonu xel war a jeex waaye dafa mel ne man maa ngi gisoo ne maa ngi changé wala. yaa ngi sekki de. na laay wax ma kii. Ahmed Aïdara mel. moo gagné de. Aliou lan la. lan la. doo doo oo nga ne ko. Macky isa ñemeñ naa ko wala ma oo ko jox ko. alors yaa ngi avance di arrière rek lan la. dama bëggoon jeex. waaye hmm? mënu maa jeex dama bëggoon jeex. Ah. saa yu ni nga toll nii moom mu ngi gën a yokku de. yaakaar naa Macky bu yërëm. Ah, booy gën a booy gën a booy gën jël yaram moom du la la yërëm moom. déedéet bu ma see du gën a sekk rek. ku gañe nga ne. Ahmed Aïdara moo ma laay wax Macky. meloon ci géejawaay. ak ni nga meloon ci géejawaay ñëpp naan la yow la yow la yaw la ñu xaar ba ba jour voté ñu ne daf may dóor de. man de xam naa dama lay mujjee bàyyi fii rek yow demal ah, bi. allo Badiane Badiane loo ñëw ci kër gi nga woo ma ne ko dañuy wut ci kañ. dama dama xam Macky dañuy dóor daf may dóor billaay daf may dóor bàjjan waxoon na ma sa damagul ba tey daf may dóor hmm? doo mën a ñëw woo mu ne jaay ñëw ku gañe Ahmed ñaxare. waaw. bu hmm? xaaree musaam am. Hmm? boo xaaree musaam am. Hmm. géwél mooy féete ci kanam. mais bii paa yaa xaaree am na bii paa yaa jiitu. dimbali ma rek dañuy dem kër Macky nga ci kanam rek nga anas. Macky daa mer rek dóor ci kanam rek bàyyi bàyyi ma bàyyi nga dem rek jiitu rek. ma topp sa ginnaaw waaw sama gàcce gi ci xajul ci bunt xam naa beneen bunt bi Quand on est une jeune maman, on n'est pas toujours sûr de ses gestes. Choisir les meilleurs soins pour son bébé est parfois difficile. Moi, j'ai demandé conseil à une puéricultrice. Elle m'a recommandé BabyMed. Des soins hypoallergéniques adaptés à la peau fragile et sensible de mon bébé. Une gamme complète pour que chaque toilette soit un moment de tendresse qui participe à son bien-être. BabyMed, son premier soin Abo Baraka Touré doomu Serigne Cheikh Touré ibnu Serigne Abdou euh, Karim Touré moom nit ku yàlla baaxal la ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak yor yaram moom tamit di nit koo xam ne ñaankat bu baax a baax a baax a baax di ku am xam-xam ba fees dell ndax da ko doon ci ay maamam moom nag ma nga ca euh, Yoof près de boutique euh, marathon bi moog Serigne Makka Jaxate ñoo bokk fi ñu dëkk di ñaari borom xam-xam yoo xam ne ñàkk ki ñaan a tax ñu ànd di liggéey waaye ñaari jàmbaar yi wax dëgg yàlla kenn ku nekk am nga loo xam ne li nga yenu rek mën attan nga ko ndax di di sa bopp Serigne Abo Baraka Touré doomu Serigne Cheikh Touré ibnu Serigne Abdou Karim Touré yal na ko yàlla defal jàmm ñaankat bu mag baa ngi nii ci jigéen ñi nga xam ne dañuy gaaw bëgg am am jëkkër ak ñi seen sëy xaw a yëngu kii moo ci gaaw yal ko yàlla defal jàmm nag su soppe la saa yi toogee di seetaan émission bi bu waxtu amee client day taxaw seetaan ba xol bi sedd mu ñaanal ñu yónnee ñu ñaan moom tamit danañ ko ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko fan bu gudd a gudd yaram fotom ngi noonu gis ngeen ko ma nga noonu euh, ma ngay wuyoo ci numéro téléphone am di 77 905 21 21 77 905 21 21 ku ko woo di nga xam ne wax say jafe-jafe yi am ci àdduna yu bëri dina ci wàññeeku ndax ku wóor la te ku mën li muy def la am nañ ci ay preuve yu leer ko yàlla defal jàmm may ko fan bu bu ànd ak wér-gu-yaram 1xBet moo leen may seen ngeen joué ci connecté wu ci site internet bi 3w point 1xBet point sn immédiatement da am lépp li nga xam ne moom mooy information yi nga war a remplir pour mun a dugg ci po mi waaye nag mun ngeen jouer ak ci kan bi euh, code ba nag di promo 221 kan soo ko defee rek mën ngaa gagné ba 5 million de francs CFA ak wan xbet daal ñëpp am nañu chance pour gagné ko te ca sa ngay toog dugal la ngay dugal g ci ak euh, sa sa sa sa crédit ci montant bi nga bëgg nga daal di am li nga bëgg mbokk yi Diouf Sarr ci boppam. xam ngeen ne lébu yi wax dëgg yàlla li leen nawee mooy wàcc seen bopp ab lébu moom munoo ko jaay euh, kër gu luxe ndax ñoom dañoo wàcc seen bopp seen waxtaan yépp ci ëtt ba la waaye ku ñëw seen kër ñu dalal la toog waxtaan waxtaan bi Diop saar doon waxtaan ak ka nga xam ne moom mooy adjoint maire am ca ba si résultat ya ca ëtt ba Adja Nogay la lionne de Diop Sarr dana leen fekk si ci biir waxtaan bi ndax information bi muy joxe dana neex jof saar wala du neex Diop saar Diop saar moo ñu yàgg jox information chaque soir ci li nga xam ne moom mooy xewoon ci biir réew mi tey nag ay mbokkam ñoo koy jox information positive wala négative nañ leen dem découvrir ndoo ni Diop Sarr découvrir li nga xam ne moo ko dal ci élection yi kër Diop saar nañ jëm <laughs> Babu Naar. waay ça va Abdou Naar Abdou Naar. ah le soleil est bon hein? oui ça moom naka bi nag. ah tout est bien oh, tout est bien. moom moom tout est bien. Eh, moom dama yeewoo oh, mbégte. <laughs> ah mais on peut on peut on peut on peut essayer de jouer quand même. Uh -huh, ouais, ouais. on peut essayer de jouer moi je ah. man Diouf Sarr laa nekk Barthélémy. non non non. non non non tamit yow tamit may sous-estimé ah, ah non toi aussi <laughs> man kii may boole ay Pape Diop ak Doudou Wade ay Soham Wardini mais ce ce gosse là on a ah, dépassé ce gosse donc tu tu incarnes que tu incarnes Pape Diop mm-hmm. ma nekk Pape Diop Pape Diop tu préfères Pape Diop bàyyi ma nekk Pape Diop c'est moi Diouf Sarr allez mm-hmm. Diouf joue et gagne euh, Pape Diop joue et gagne <laughs> mm-hmm. Diouf Sarr qui démarque qui pousse <laughs> ama moo ko léwu ah. waaw waaw <laughs> dañu ko asé ba mu saf. Eh, waaw waaw je joue et je gagne. Eh, je joue et je gagne. je dame et je gagne. Pape Diop avancé na. Adja Nogaye. waaw alors. waaw. monsieur le maire. waaw. kon yéen gis ñu ngi fii nii ñun. am confiance ça. nee na moom mooy Pape nee na mooy Pape Diop ma ne ko Général Diouf Sarr. je suis en train de gagner gis a Adja Ndao kay xaaral ma may ko benn. je Pape Diop Sène. waaw nekk di jouer nii. waaw xel yi dal mm. <laughs> leen joow leen joow leen monsieur le ministre gaal gaa ngeen lii xeeñ neexul de. Ah, lii may xeeñ daal ça sonne mal à l'oreille. Ah. bon. mais c'est c'est la tendance c'est normal. Ah mais toutes élections c'est <laughs> normal. rek. xool c'est remonté xam nga boo duggee ci robinet. non yoof laa wax dëkk yoof li ma fay xeeñ. man ne neexuma yoof loolu sa kaalaw. yow kay mbégte la. <laughs> Eh, Adja Nogaye bu ñu yàqal. alors Pape Diop. je joue je gagne. Adja Nogaye Pape Diop avancé na jigéen la jigéen la il faut la comprendre. je joue et je gagne je gagne je joue. yaa ngi double kii eh, eh, Pape Diop de. mais noonu la nar a demee sax tey <laughs> bon tac tac tac tac je sors tac tac tac je gagne. je te donne deux points. non <laughs> raw naal gars eh? yaa ngay commencé raw gars yi. ah non yàlla demee nii rek si kanam. monsieur le ministre. de je m'excuse. waaw mais je pense que waroo leen nekk nii di tala jouer parce que Ndakaaru tamit la fay jib ah je suis vraiment désolé. yaa dem ba la lion de Diouf Sarr nga nekk la petite souris. yaa ngi changé ah. Euh, tey moom li may xeeñ du lion mais chat moo may xeeñ. muus ah la la lion est devenue <laughs> lii xeeñ Dakar neexul de. lala dañ la ko ba si résultat yi donc xam naa ni amoo temps bu pour déglu boobu ba léegi moo tax mais résultat yi hmm. baaxul de. résultat <laughs> bon Adja Nabé da nga stressé ñun bàyyi ñu ñu jël da nga stressé ok ok donc eh allez allez Pape Diop je te gagne je te gagne je te gagne je te gagne léegi da ngay changé nag ah. gagne naa Pape Diop tu deviens soxam bàyyi nekk soxam ko non jigéen du ma du ma du ma kay ah, on va changer ah, Doudou Wade Doudou Wade choisi Doudou Wade fii ah, la ma nga tëdd may naa la nga Bart non may naa may naa la mais di jouer parce que dama wóor na ma lay gagné da na ma lay gagné je joue <laughs> Barthélemy avancé teg teg je t'ai gagné Diouf Sarr instant am naa la confiance waaw waaw je joue et je gagne mm-hmm. non non non non non man maa gagné non monsieur le maire. pour moom yaa gagné monsieur monsieur ministre. Mhm. maintenant quoi. non mais man xam nga lan moom lan laa bëgg a xam. waaw maanaam yow ñi la toppoon. booloo yu ñu toppoon ñun. naan waa koñ bee. waa koñ bee kaay leen Diouf Sarr ñëw na. dama bëgg a xam ñooñu waa Tëngéej lañ. wala waa Wakaam lañ wala waa fan lañ. yow laa bëgg a wax foofu lan laa bëgg a wax. non. Adja lii mënu ma ko mënu ma ko gëm. Adja mais qu'est-ce qu'il y a. monsieur le ministre on a perdu. on mais Adja Nogaye. non mais kii dafa may. loolu laa la wax nii. <laughs> mais ñàkk nañu commune bi ñàkk nañu ville bi. Yoff ak Dakar ñun ñoo ko ñàkk. xaw ma woon sax naka laa la koy annoncé je suis vraiment désolé ñàkk nañu ville bi ñàkk nañu euh, euh, commune bi en plus dañ ñoo dañ ñoo raw lu bari lu bari lu bari man je me dis que population wu Yoff. kan moo mujj gagné donc. mais Barthélemy. moo gagné ville Barthélemy moo gagné Dakar. Barthélemy moo gagné ville. xam nga la moom a gën a naqari nag xale bu tuuti mu ngi door a juddu moo gañ a yoof Seydina Issa wala Issa Laye Samb ce jeune là qu'on sous-estimé ki ñu doon sous-estimé xam ne dañ doon wax naan kooku man maa kanam jox ma daal jox ma la <laughs> gi mais tey nag lay doo ko gëm ni nag kaa yi ñu doon annoncé boobu ba tey ñu ngi doog ko am ay cas tey moom dañoo boole communautaire boole contact boole cas grave. man de Abdou ku ma waxoon man Abdou Naar ku ma waxoon lii du ma ko mës a gëm si àdduna Abdoulaye Diouf Sarr dañ ko gañee dakaar gañe ko Yoff fii. Eh, man Adja Nogoy Mbuub nag man Adja Nogoy Mbuub li ma dajale ci ay jeunes dajale ko ci ay femmes. fu ma génn ñu topp ma waa koñ bee waa koñ bee kaay leen Adja Nogoy ñëw na waa koñ bee waa koñ bee kaay leen Diouf Sarr ñëw na non est-ce que ñooñu yof lañ dëkk dëkkuñu yof. monsieur le ministre sa daal yaa ngi nii kay jël daal monsieur le ministre monsieur le ministre excuse-moi. Hmm? say daal la Adja Nogoy. Hmm? say daal la la les cas sont graves ça. très grave même am na sax ay urgence fi mu ne kay monsieur le ministre. mais Adja Nogaye xoolaat nga euh, euh, bureau de vote yëpp ba pare. Abdoulaye madame Sarr fu mu féete Thiawlaay foo ko mu ñëw defal ko laa madame Sarr mu Thiawlaay. Oh, sa mbax ne. monsieur li soo musóor la. sa mbax li soo musóor la. Oh. soo musóor la de. Mm. vraiment désolé man ñu doon topp dama xamul fan lañ dëkk est-ce que c'est des réellement des Yofuwa. ouh mais monsieur le ministre <coughs> 1xBet 1xBet est une plateforme de jeu vous pouvez euh, parier par ligne maanaam mun ngeen ko parier seen téléphone te doo leen jóg fi ngeen toog vous devez télécharger l'application sur Apple Store iPhone war nga dugg nag ci Play Store Android war nga connecté wu ci 3w.1xBet.sn euh, pour inscrire ak remplir toutes les informations personnelles euh, ñu ci ànd nag mun ngeen miser ci match yi nga xam ne ñoo am ci coup d'Afrique bi le code de promo est 221 CAN Euh, vous pouvez euh, gagner jusqu'à euh, cinq millions de francs CFA cinq millions de francs CFA mun ngeen ko ci gagner avec One XBet tout le monde a une chance de gagner One XBet partenaire officiel des Lions kon mbokk yi mbir yaa ngi noonu ànd ak Dream Cosmétique ci produit yi nga xam ne ñoom ñoo leen di neexal ci seen ay nekkin ci tàngaay bi waaye tamit ci yaram yi xars yi xas ak yi xasa nag ak yi nga xam ne day xar lépp da cee baax ñuy wax. félicitations maire de Cambérène Doudou Pathé Mbengue ci ndam loolu nga xam ne am na ko euh, di wax joyeux anniversaire Amina Sow chéri Mao Cissé réalisateur bu mag bi bisu euh, bisi TFM dundal wéral aawo buuru këram euh, du leen ñaanal fan bu gudd ak wér gëram yaayu Mohamed de la part de Khady Gakou dédicace à Bougouma Sarr depuis Paris yaayu Baytir doomu ndeyu soxna seen GP bu mag bi di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gëram moom mi nga xam ne mooy Bougouma Sarr de la part de Khady maire Fa Niang Mbodj ay eh, ay ak maire eh, Mbengue Dia depuis Pikine Saint-Louis ñu ngi leen di nuyu ñaari maire yi di maire Fa Niang Mbodj ak maire Bëggee ja ñaari maire yoo xam ne wax dëgg yàlla kenn mun leen tere ku Kouthia Show te bu heure bi jotee nag wax dëgg yàlla ku jàkkaarloo ñoom yaa leen tooñ ndax dañoo bëgg Kouthia def ko ci Pikine ñu ngi ca Pikine euh, Pikine euh, Mbaar foofu nag ca Saint-Louis euh, dédicace à Lamarana Diallo fils de Téné Diallo et de Kassima Diallo depuis Guinée Télémé dédicace à Diatou Waalo Samb Diatou Waalo Samb wala Samb Diatou Waalo Samb ak Diatou Gueye depuis Ngor ak waa dëkkam Puñ yëpp Puñ yëpp de la part de Lebu aji Nogay Mbuup ak a euh, Sam Sam soppay Njoobeen Euh, Fall maire de maire bu nekk Sicap Diamaguène dédicace à Ta Nabou Diop depuis Almadi joyeux anniversaire a Mohamed Samba fils de Ada Mariama longue vie santé bonheur et prospérité à Mohamed Samba depuis Sicap Layène à Mati depuis Thiaroye yaayu Debbo Diallo dundal fan bu gudd ak wér gu yaram nañ lay ñaanal sa doom yëpp ñu ngi la koy anniversaire à Souleymane Samba de la part de maman Aïta Silla qui te souhaite longue vie et santé président Kandji depuis Kaolack de la part ngi moom ci anniversaire am président Kandji Kandji anniversaire à Fama Fall depuis Kaolack de la part de Pape Anne euh, Pape Am ak euh, tout le personnel de TV5 foofu ca Kaolack ñu leen di ñaanal kendal jàmm mbokk yi président Doumbouya colonel Doumbouya lu leer nañ la waxoon waa Guinée je veux la coupe nag Gambie moo ko capitaine ba ñëw na di indi drapeau ba ndax ba ñuy dem dañ leen joxoon drapeau <laughs> bu ñuy ñëw capitaine ba ca boppam mooy ñëw indi drapeau bi ñu dem xooli le président colonel Mamadou Doumbia qui reçoit les les Guinéens l' équipe nationale la Sile di Guinée le Sile <laughs> waa Guinée ñooy jàkkaarloog ak ki nga xam ne mooy colonel Doumbia ñu dem seeti ko qu'est-ce qu'il y a pourquoi ralenti comme ça pourquoi pardon Gambie la Gambie même Dabia qui fait trois quartiers de trois fait la population de Gambie trois quartiers de Conakry fait la population de Gambie je vous ai bien dit que si vous ne gagnez pas vous remboursez non seulement vous allez rembourser mais vous allez faire une correction tout le monde toi tu, tu vas commencer par toi tourne le drapeau Donnez-moi le drapeau. Tu n'es plus capitaine, donnez-moi le drapeau. Vous avez humilié la Guinée par la Gambie. Gambie Donnez-moi les raisons maintenant. Pourquoi vous n'avez pas gagné La Gambie J'ai gagné Burkina. Tu mais, mais, la toi là, tu es le capitaine. Ouais. Toi, tu joues à Liverpool. Ouais. Toi, tu as marqué beaucoup depuis à Liverpool. Tu joues là tu mets tout, tout, tout, pour gagner avec ton équipe à Mais pour, pour, la Guinée, tu ne peux pas marquer. Tu ne pas gagner. La Gambie. Banjul. Gambie Banjul. Répétez, Gambie Banjul. Banjul Gambie Banjul Serekunda Serekunda Banjul Banjul Gambie Banjul Adama Baro Adama Baro Gambie Banjul Banjul encore on va rembourser dis on va rembourser dis on va rembourser on va Banjul Banjul. Gambie. Gambie. Banjul. Banjul. Gambie. Gambie. Banjul. Banjul. Monsieur le Président. Eh, Gambie Banjul. Hmm. Banjul. Adama Barrow. Adama Barrow. Gambie. Banjul. Banjul. Banjul. Parle tu Banjul. Eh. Banjul. Banjul. Désormais tu, tu répètes ce que je dis. Désormais. Désormais. Je suis Gambien. Je suis Gambien. Nous sommes Gambiens. Nous sommes Gambiens. Gambie. Gambie. Banjul. Banjul. Gambie. Gambie. Allez encore. Allez. Allez, tu recommences. Vous savez que cet argent, ce n'est pas votre argent. Vous foutez des gens. La Gambie. La Gambie. Allez, saute. Gambie. Saute. Il faut sauter. Gambie. Gambie. Bah, saute, sauter.

Conjugue-moi le verbe rembourser au présent. Je rembourse. Je mhm. Je rembourse, monsieur Je rembourse. Tu, là? Rembourse. allez, il faut tuer avec le, verbe. Allez. Nous. Rembourse. Nous remboursons. Nous ramassons. <laughs> tu fais le petit malin. Gambie, une petite pays comme Gambie. Allez, Banjul. Hein? Banjul. Banjul. Serekunda. Serekunda. Banjul. Hein? Vous n'êtes pas entré Banjul. Banjul. Serekunda. Serekunda. Banjul. Banjul. Serekunda. Serekunda. Yaya Djamé. Yaya Djamé. Adama Baro. Adama Baro. Dalasi. Dalasi. Vous allez continuer jusqu'à Gambie maintenant. Sallallahu ala Muhammad. Rasulillah. Mohamed Abdallah Thiam nee na soppeem ba Seydina Mohamed rahmaanu rahiim malikul xuddus assalaam OneXBet est une plateforme de jeu. Vous pouvez parier en ligne. Comment l'acquérir? Vous devez télécharger l'application sur Apple Store, Apple Store euh, iPhone ou Play Store Android euh, ou contacter votre site internet www.onexbet.sn. Vous devez vous inscrire en remplissant vos informations personnelles boo ci duggee nag di ngeen la am lu ñu la laaj tegtal yooyu boo ko defee ba mu jeex nga mën ci ñi nga xam ne dañuy jouer ci match CAN bi le code promo c'est 221 nga mën a nag bokk ba 5 millions de francs CFA avec OneXBet tout le monde a une chance de gagner OneXBet partenaire officiel de Lyon et partenaire de Kouthia show de l'émission euh, d'audience plus de 7 millions d'auditeurs euh, ci biir àdduna bi ak lu ko wër mbokk yi ñuy am mbégte ak contentement bu mag ziara annuelle bu Serigne Babacar Sy rabial taala anhu dimanche lay am le 13 mars ñuy ñaan ñëpp nañ ci teew Serigne Babacar Sy rabial taala anhu yal na yokku leeram foofu mu nekk ca eh, àjjana gën a kawe ci ëttu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan bés bi nag na ci ñëpp a teew ndax ziara bu mag la boo xam ne ci la doomu aadama yi ah alaaji yan ma deer suñu bàyyi ju baax ji xam naa ne bés bii moom ziara bi eh, moom kenn du ko fa jiitu ndax suñ Babacar Si ko jox wérd ci loxo ak loxo muy taalibe sëñ Babacar Si kon ziara bii nga xam ne moom mooy le 13 mars alaaji yat ma deer bu ko defulee këram dana dem awan fekk ko fa yal na yàlla fanam waaye yàlla tas ñu ci barke ki nga xam ne moom mooy sëñ Babacar Si rabbi taala anhu mbokk yi ki ñuy seeti nag wax dëgg yàlla xale bu am jom la di professeur Ousseynou Diop euh, nekk maire bu Sibassor bokk doxal Sibassor daal la doon wax fexe na nag euh, euh, mouvement boobu ñu ngi ko créé 2017 waaye mooy le tout nouveau maire def fa lu am solo wax dëgg yàlla gañe bu rafet waaye nag suñu xarit bii nga xam ne nag moom mooy nit ku baax koo xam ne mooy almaami almaami di nit kuy ñaan foofu ca Sibassor Euh, nee naa mbër bu daanee ba gërëm ndeyam ak baayam ak wasilam da ci sant ay sëriñam yi ko ngemboon te ñaanal ko almaami jàmbaar jooju nga xam ne fotom ngi nii bokk na ci ñi ngemboon xale bi nga xam ne mooy Ousseynou Diop moo taxit delloo njukkal Ousseynou jóob bi dama koy jox ki nga xam ne moom mooy almaami nga xam ne ñaankat bu mag la foofu ca Saalum di taalibe Baye Niass di nit ku yàlla baaxal di xarit bi xaritu xalif bi sëñ Pape Mahi Niass xaritam la ndax ca gàmm moom kii nga xam ne mooy almaami xalif yi ñëw na ba ci ay tànkam yu tedd yooyu teg ko ci këram daal di fay ñaan kon almaami yow nañu wax félicitation ci docteur Ousseynou Diop ñu seeti docteur Ousseynou Diop bi nga xam ne mu ngi delloo njukkal waa Sibassor ci mouvement bi nga xam ne mooy bokk doxal Sibassor ànd ak bannière bokk gis-gis remerciement ya ca Sibassor jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañu vraiment ñu kenn foogul nañu def mooy yàlla may nañu ndam ci Sibassor bu bees ñu àndaat suñu mouvement ànd doxal Sibassor mu daa dee dox jëm ca kanam la woon dana woneeku dañuy teg lu bees ak émergence bu bees ak dëkk bu am xar-xaram karam bu bees tàq boo xam ne mbégte la Sibassor dina utal Sibassoru tey dañuy sant jeunesse bi jigéen ñi mag ñi kilifa diinay aada yi ndax jël nañu lu diis teg ko suñu loxo waaye ñun xam nañ ne antan nañ ko te dañu am ay partenaires partout France Espagne Italie États-Unis suñu ay partenaires taxaw nañu pour dès fin du mois bi ñu commencé liggéey ñun kay caabi mairie bi nañuy laaj ak sama caabi bureau ñu commencé tàmbali liggéey bi amul xaar amul yàgg yàpp xaj bu seddee soob ndéem nañ ko lekk comme Sibassor bu bees gërëm nañu ñëpp di leen xamal ne la nouvelle génération politique sénégalais mooy les jeune yi nga xam ne bëgg nañ changer xar kanamu seen ay dëkk na mag ñi dem xale yi toog waaye mag ñi nañu nekk suñu wet di ñu xelal ndax xale wax dëgg yàlla bu bëggee yor ab réew foofu muy déglu ay mag ñu ne mag ñi ñoo gene waaye nag ñun xale yi li mag di doxal attan nañ ko moo tax ñu bëgg a ànd ak mag ñi ak xale yi doxal Sibassor Sibassor bu bees Sibassor Sibassor buy dox ñëpp am ci jàmm ndox mu neex lamp yu leer télé yu ñuul dëkk bu neex jigéen ñi sëy góor ñi takk mag yi yàgg fi Sibassor ca kanam maire Fa Ñang Mbodj ak euh, maire euh, Mbëgge Dia nekk cëpp Pikine Saint-Louis ñu ngi leen di gërëm di la ñaanal euh, kenn jàmm ñooñu suñu ay soppe nañu di la ñaanal yàlla dafa leen jàmm fan bu gudd gu yaram bu leen fàtte jàngu mbay alaaji mbay peex yi la 5 février lay am foofu ca peex ma jóg peex moom tamit mu ngi woo ñoom magi chanel woo ci tamit képp koo xam ne xaritam nga suñu xarit Omar Baaw moom tamit ñu ko ciy woo ci bés bu mag boobu nga xam ne baayam xaritam soppeem di alaaji mbay peex moo koy amal ñu fas ci inauguré dispensaire bu mag boobu mbay jóg peex nag nee na ma képp koo xam ne xaritam nga danañ leen joxe nag suba liste bi ñu gën ko yaatal waaye ak yéen mbokk yi euh, One SBT ak euh, Dream Cosmétique ñoo la may seen émission Kouthia Show ñu daal di tàggatoo dox daje incha allah ëllëg Apulaay moo nekkoon ci réalisation ba fekk goog Fatou stagiaire mbokk yi ama réew ndeysaan man su ma la gisee rek damay am découragement daan ndey ah, <laughs> ça va yow xanaa affaire bi dana ah, yi. waaw gis sa bi xaw a lu xaw a kii daal. Sonkoole Sonkoole Sonkoole Barthélemy Sonkoole Sonkoole man damay wey de. woon kenn du dégg yéen APR yàlla ay boo leen gagné woon tey da ngeen dañ leen gagné rek Sénégal gagné. <laughs> yéen yeeyu askan bi damay félicité waaye tamit lion yi yeeyu si supporters yëpp. ñëpp yéen da ngeen yéen daal yéen waa Benno daal. yow de yaa ñu um sa làmmiñ yéen daal dañu um leen dañu leen gagné rek lion yi commencé gagné. Mm, yàlla dañoo yeewu Sénégalais yi. di félicité Aliou Cissé ak équipe bi yëpp ah. gis ñaanal ndam est ce que xam ne waa yeewu Sénégal. Mm. verte la. Mm. ak jaune ak rouge gis nga. waa Sonko rouge jàmm am hmm. yaa fa gis rouge yow. gisoo rouge si. yaa fa gis rouge. Sonko verte jaune rouge la ñun moom nañu gëm ñun. ok gis nañu rek am na ay euh, dëkk yu bari résultats yi maanaam génne guñu ko ana ban xalaat nga ci. ah yooyu lu yeex ni résultats yooyu ay gàcce la. gàcce yu mag yuy nekk seen kanam. yoo xam ne ñoom bëgguñu ko génne léegi daal. Hmm. gis nga ñii. Hmm. ñii te ñoo xeewi. kan moo xew yi. xale yee xew léegi xale moo xew. Mm. ñii dañoo xeewi. mag baax na ci réew baax na waaye ñii dañoo xeewi dégg jagay def nank man waxuma ak yow de. man kii lay tontu. Mm. ndey mm. ñii dañoo xeewi. ci naka waa Bennoo. ñoom ñoom ñoom ndekete ñoom seen làmmiñ ñoo rëy rek yéen Macky Sall def leen war a ci néeg téye leen dóor leen ba ngeen bëgg mais Bennoo du Macky Sall kese du APR kese am na ñeneen ñu nekk am na ñoo tax muy xaalis ñooñu tamit biir. Eh, nga leen ñëpp dañuy lekk xaalis yi. Ah. ñii ñëpp dañu lay tappale gis nga waa yeewi amul luñ jox nit ñi te nag damay wax ne waa yeewi ay ponkal ñoo ci nekk de Serigne Moustapha Sy mm. wallaay liggéey na ci lu rëy dëgg parce que ñoom seeni i jàppande bi dafa nekk lu dëgër mm-hmm. waaye ñii dañu gis nga ñi mm. dañuy xeexante seen biir dëgg la eh, eh, Diop Sarr ñu warul daanu mm. jaaxal na ñëpp. waaye Diouf Sarr daanu. yi gis ñoo xam ne ci ñoom la ñu nekk ñi zibilé. ñoom ànduñu dañuy ànd ànd eh, ànd ree wan ginnaaw. jëwante jëwante. dëgg la eh, ci Haalpulaar ñu ne bujjine aati. bujjine yaati ati ati bujjine. Eh loolu la ñuy wax ci Haalpulaar. jërëjëf. Mhm. Omar Omar xam-xam a ngi nii. Mhm. yaay. <laughs> jot ku leen jot door nii. damay danaa rëcc wala lan. fayul fayul yéex nañ leen yeewi ji. waa léegi doo bàyyi man ma poser que question ba pare dafa rëcc wala. dëgg la ci yaay ku ne que yéen dañ leen door. bàyyi tooñ Omar. Mm-hmm. bàyyi tooñ bàyyi ma poser que même question bi ma la poser mu wax sa xalaatam yow tamit nag. Ah, man nga tooñ trop. monsieur le maire numéro 2. kan la man. ok Barthélémy moom moo ko ah, di. Euh, gis nañ rek Omar li mu wax léegi mu nekk dëgg ndax gis nañ si euh, candidat yi ñu bari bari fu ñuy dem dañuy ànd ak mbooloo tàcc bi bëri lool baalu ma tàcc bi bëri fu ñu dem ñu xumbal génn leen diw ñëw na mais gis nañ ñeen ñenn ñi zéro yi bëri na ci ñoom ah, ñenn ñi ah, seen gox dañ fa lajje a ban xalaat nga si am mu mel ni nit ñi dañoo yeewu daal dañu lekk sa xaas ba pare dem voter keneen boo mm. nitee pare li ma ci xalaat rek dafa nekk jàngat rek mm-hmm. jàngat la mm-hmm. ndax jël boo gis buñ la daanee mm-hmm. euh, du gàcce de da ngay daal dem defaru juwaat rek te daf lay permettre tamit nga jàngaat sa bopp xoolaat peut-être côté yi nga xam ne amoon nga fa faay nga defaraat ko <laughs> juróom ñi nga xamante ne xëy na ñoo ngi doon ànd ak yow ndax li nga li mu wax noonu dama ci dama ciy ànd ak moom ci benn ah, côté benn côté dama ciy ànd ak parce que am na kanam yu bëri yoo xamante ne hmm? danga dañ doon gis ah, ñuy àndandoo ak yow di tàccu di kii ah, mais ba ba ba ba suñu adversaire gagné danoo nekk di jubilé di naan ay maire ay maire xaleeg yu kenn xamul mais ah da lay permettre rek ngay xam na sa hmm? tey moo lay xamal sa suba. gis nga ñun am nañu yeneen projet yoo xamante ne du ay maire ak yi. xanaa du Sénégal. ak ah, kay ah, Sénégal mais ana investir. ah seen xel dafa nekk am nañu xelu investir. eh dimbali ma de waxal ma lu ma wax dama ne la am nañu xelu investir pourquoi pas ibi ay usine jël si jeunes yi nekk ah, traité. chef de quartier yi. kañ lay eh, élection chef de quartier yi. ay Omar élection chef de quartier xanaa nag boobu nag. waaw Moussa de li ne ci boppam bii xajul ci bopp gone déggoo ma de yow eh. maa ngi lay tàggoo Omar. li may tàggoo mooy Diouf. Hmm. Diouf Sarr muñal Euh, Aliou Sall moom dafa war a dem uti liggéey léegi journaliste. dem defi reportage. Mm. lu Ahmed Aïdara deful mu yàqu. ndax loolu ko Ahmed jàppee woon bi mu nekkee ci biir. léegi moom mu ngi ci biti lay ruube. Diouf Sarr nag moom léegi na dem jaay ay moustiquaire. imprégné ji ak masque distanciation bi moo ko rey moo wax def leen def leen distance Diouf Sarr li mu liggéey ci feebar bi ñëpp gis nañu def leen distance li mu liggéey ci feebar bi ay yow yow kenn mënu ko ci kay dégg naa da doon waaj a inauguré pont bi dama ne la kenn mënu ko ci te dina ko inauguré ba soobee yàlla baa ci yéeg dina ko inauguré moom Matar Sylla Khady Diop mm. ngoone me nga yaay jal jëri ngoone si ngéeri ngoone maam Matar eh, Mbay Diop loolu neex na kooku dawul xare benn yoon sama waaj du des ginnaaw maa la wax lii ndey tàggoon daga san shi ni furiyo bai wanderu dai sai wanderu dai dai ta ni ngay wanderu nga woni ko man réew sax yow wax ji moo moo doy. dóoral yaay fa yow wax ji si boppam sax na moo doy ndax yow xool naa sax yow li ma la may mu ngi bëgg a ëpp. parce que benn ñaar bi nii sax man mosuma la ko. waa ko koñe. waa kon bee génn leen seetaan eh. gàcce bi waa kon bee génn leen hmm. seetaan Diouf Sarr corona waa kon bee génn leen ah. seetaan Aliou Sall